nga xam ne Touba sëñ ci moom sax jàppewu wu ko ab dëkkuwaay ak këram la ko jàppee kër nag la neex boroom kër hmm. waaw loolu la wala fi wax hmm. waaw lan moo wutale Touba ak yeneen yi ak kër gii di Touba lu mu nangoog lu mu bañ ak lan moo ko wutale yeneen yeneen yeneen sëñ Mbàkke eh, waaw sëñ Cheikh Gueye dafa wax lu am solo ci dafa joxe histoire Touba eh, wane na itam tuuba eh, su fekkee sax dañuy wax ne dañuy comparer Touba ak Sénégal dafa mel ni Touba moo njëkk am indépendance Sénégal ndax li tax Touba moo njëkk am indépendance Sénégal mooy titre foncier bi jiitu na indépendance Sénégal kon Touba moom moo njëkk moom boppam. comme avant Sénégal di moom boppam Touba moom moom la boppam ba pare. kon dafa moom boppam ba pare nag. dugg ci moomeel gi nga xam ne ci la Sénégal mooy boppam. donc loolu ma tax lu ma tax lu ma tax la. waaye nag dafa am ay loi en vigueur yu nekk fii ci réew mi yoo xam ne day régir sénégalais yi. loi yooyu dafa am lu muy nangu ak lu mu nanguwut waaye soo ñëwee ba biir Touba nag loi yooyu lim ñuy régir régir nag am na loo xam ne ci biir dëkk bi dëkk bi da ko nanguwut mais lim koy bañ bañ nag loi yi ayoo ko xam nga nit ki nga xam ne dañ ko fekk mu yor cigarette di tux amul benn loi buy condamné koy tux cigarette amul loi buy condamné kuy naan sàngara waaye ñun dañ koy bañ. bañ googu ñu ko doon bañ nag ñu amoon kilifa yu mag a ñu jiital Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yal na yàlla yokk leen taas nu ci mu nekkoon fi ak i eh, nattangoom su ma ko mënee ba baat boobu eh, Cheikh Saliou Cheikh Abdou Khader sëñ Chouaïbou Cheikh Moutala Mbacké yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp tax nu seen Mbacké ñu amoon lu ñu moon ci wàll googu ba état nangul leen ko waaye bi leen ko état nangulee ba pare nag tant que defuñu ko mu nekk loo xam ne dañ koo bind noir sur blanc. dañ leen koy nangul rek ci ci ci ci dégg-dégg waaye am na foo ne su fa àggee nag ki nga xam ne moo yor loi yi te di ko atte muy les procureurs ak les présidents tribunaux su leen neexee ñoom mën nañ caa teg seen tànk ba lu mel noonu am na gàllankoor gu mu andi ci fan yi ci organisation bu fi nekk boo xam ne nii euh, kilifa yooyu biñ bindee loolu bañ nangul leen ko dañoo wax ne nag nu ñu def ba aar ba hmm. am nit ñu jóg nag bëgg a ba waaye li ñuy aar. aay itam li ñuy aaye loi ayoo ko kon il faut que ñu am statut spécial bu ñu permettre ñun li li loi aayewul ñu man ko aaye ci dëkk bi te ñi koy def itam ñu mën leen a aar ndax am na fi ñoo xam ne nii am nañ fi lu leen dal muy safinatul amaan ndax dafa bokk ci ñi aar dëkk bi waaye bi mu leen dalee ba katas ba euh, ndogal googu dal leen bi ñu amee bi ñu demee dañ leen a accusé d'usurpation de fonction et de voie de fait mais nit ki yow kilifay dëkk bi ñoo dajaloo ci seen kanam seen kilifa Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu am luñ ko nangul ñu dénk leen ñoom liggéey boobu ñu di ko saytu nga nga nga accuser leen d'usurpation ak voie de fait ba condamné leen ci là c'est un problème parce que ñooñu aussi dañuy dem ba ak ak ragal dinañ dugg loolu nag pour mu bañ am nag il faut que ñoom ñu jox leen ñu jox Touba nag statut spécial bu leer boo xam ne ci la ñuy mën a taxaw ñoom Touba. ba li loi aayewul ci réew mi ñoom ñi di ko mën a aaye te statut spécial boobu permettre leen aussi ñu mën ko justifier loolu moo donc loolu bokk na ci beneen bi ci des moo di avant comme parle de statut spécial am na lu ñu war a jiital Touba commune la mais ban façon commune la Serigne Cheikh gi xam na ne am na benn décret 2020 numéro 30 portant l'organigramme des collectivité territoriales loolu nag dañ ko spécifier ndax dañuy wax ne collectivité locale bii collectivité territoriale bi dafay nekk type région wala mu nekk type commune chef de région wala type département wala commune chef de département te loolu Touba nekku ci benn kon léegi fooy dugal Touba ndax Touba du département département bi Mbacké la du commune boo xam ne aussi chef lieu de département la kon parce que nekkul Mbacké du commune boo xam ne aussi chef lieu de région la du région. kon li ñu war a njëkk def mooy commune bi nga xam ne moom la ñu yor. di ko saytu. mais ñun ban type lañ bokk. type bi bokk. ndax dañoo wax ne su fekkee dafa nekk euh, commune chef lieu de région. ou département su fekkee dafa euh, une population. supérieure à cent mille habitants. avec un un budget exécuté de deux milliards 500 million type région la. wala type département mais ñun am nañ ko waaye nag nekkuñu ci région nekkuñu ci département ñun kon fu nekk ñun fan la ñu boole ñu ngi ñu boole ci toute autre commune nga xam ne mooy 100000 habitants avec un budget plus ou moins supérieur à 500 millions donc li ñu war a njëkk a mooy fu ñu bokk. Mm-hmm. ci organigramme bi ba pare parce que organigramme bi nga xam ne état moo ko teg mu leer. ñu war koo exécuter nga xam ne nii dañu ñoo joxoon délai. Mm-hmm. ci 31 euh, décembre 2020 bii par 2021. délai bi jàll na waaye ñun xamaguñ fu ñu bokk donc loolu lu jara a lijjanti la suñ ko lijjantee ba pare nag loolu ma la wax mooy li am yi tam nekk dëkk boo xam ne da ngay xool 1927 bi ku tedd ki ñu Touba ñaata concessionnaire yi la woon bëriwul woon de. kër yi bëriwul woon. 1945 bi Cheikh Amadou Moustapha di jógee Touba fu mu tolloon. waaye 1968 bi Cheikh Mamadou Fadil di jógee Fouba fu mu tolloon donc mënatuñoo considérer Touba ca Touba 1927 ba wala 1945 ba wala 1968 parce que actuellement ñu ngi wax ne Touba toll na ci lu ëpp 2 millions de personnes waaye dëkk bu am 2 millions de personnes am boroom yaakaar naa ne war nañ ko jox un statut spécial pour ñu xam nañ koy gouverner avant que ça soit trop tard. Euh, sëñ Bakke euh, dafa mel ni jamono si plat parce que docteur dafa lu am solo. muy jot nañu poser débat bi parce que tam am na loo xam ne kenn mënu ko daw da ngay poser le débat ak ay des argumentaires parce que tëbbu ñoo tëb ne wadd lay ne cëpp rek ne Touba c'est spécial am nañu ay argumentaire am na lu wér loo xam ne war nañ ci mën a sukkandiku mën ko wax te am na aussi loo xam ne jot naa daw man je me rappelle Cheikh Blaat bi muy tere lii am tox Touba di tere sàngara Touba di tere am tëgg ak yi muy tere yëpp dafa demoon boobu ci le président bi mu wotal ko ay décret je me rappelle si yëpp laat euh, kii nga xam ne mooy euh, mooy la mooy ancien chef de village bu Daaru Minam demoon naa fa di waxtaan ak moom ci dëkk bi mu ne chef de village boobu chef de village yëpp la woowoon teg ay pile de documents yu toll leen dem naa ci njiitu réew mi ko lii moo koy dagaan ba nangul na ma ko ba def na ci ay décret ngir bëgg ku fi nangam ne sàngara ñu ne la jàpp ku fi tuxati ñu ne la jàpp ku defati nangam ñu def la nangam ndax tey nit sañ naa taalub cigarette am biir Cambérène nit sañaa taal taal cigarette am Kaolack nit sañaa taal cigarette am Ziguinchor mais fii Touba boo dem muy cigarette ñu jàpp la leneen ak leneen leneen leneen leneen docteur wax na léegi affaire parité parité boo demee liste bu respecté wu la parité da lay rejeté dégg nga sax coow bi ci am diggante ay Wallu ak Yewwi ak ay je ne sais pas ba Benno Bokk Yaakaar ci élection yi passé ci ay respecté parité ñàkk koo respecté mais Touba amul fii liste amul parité ba ci yéen waa mais amul sax fa une deuxième liste liste bi liste xalifa bi loolu ça passe amul amul alpha amul bêta kon dafa mel ni am na ci loo xam ne déjà ñun buñ ko bëggee am dañuy poser le débat teg ay actes yu mën koo am léegi nag lan moo tere actuellement ñu poser carrément le débat lan moo actuellement ñu def ab demande officielle au niveau des des autorités étatiques pour que Touba am un statut spécial comme ni ñu ko amee ci mu domaine yu bëree bëri bëri. Euh, waaw euh, sëñ Cheikh euh, sëñ Cheikh li wax lu am solo la. waaye man dama am loo xam ne dama ko wax mais li may wax nii ça n'engage que moi man gëm naa ne parité boobu ñu wax. man gëm naa personnellement li may wax ni sëñ bi mën naa am sax bañul parité waaye parité désordonnée lay bañ li tax ma wax loolu mooy ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ci euh, état civil bi di gis gis nañ ne Touba actuellement huit cent mille actes d'état mi ngi fi. dans les tiroirs loolu amul fenn ci àdduna. 800000. naissance. 800000 actes d' état civil entre mariage naissance décès 800000. kooku dëkk bu ñu war a organiser la. Mm-hmm. beneen bi ci des itam parité boobu man gëm naa ne mën nañ ko organiser parce que soo ñëwee commune Touba soo nekkoon ci mbedd mi di génn mën nga faa compter ñaar fukki jigéen yu fay yu fay liggéeyee kon. ma def na ko mën a organiser parce que mbuuru ne man damay bañ parité. ba pare soo taxawee ci comité bi mën a ñaar fukki jigéen ñu fay liggéey te bokk nañ ñi gën a jàmbaare ci dëkk bi beneen bi ci des moo de dafa am lu garaaw mooy dëkk bi xale yu yi nga xam ne ay jigéen lañ fi ñu toll fii ne ci njàngum nasaraan ak fi ñu toll ci njàng mi nga xam ne moo yor adduna àgg na foo ne suñu la ko war sax doo gëm ñii am na nañuy bac ñi am nañuy maîtrise ñi am nañu lu ne gis nga loolu suñ ko organisé wut suñ deful attention dañuy dem ba ci kanam tuuti jigéen yi jumaa yi rek la ñuy bàyyee. jumaa yi te duñ ko mën a jiite rek moo tax waaye suñ ko mën a jiite sax dañ ko nangu suñu loxo mais kon loolu lu jar a organiser la pourtant Serigne Saliou yàlla nañ ko yàlla fayal mais organiser woon na ko amoon na benn doomu sëñ Abdou am na benn doomu sëñ Abdou Lahat bu ñuy wax sëñ Karim sëñ Abdou Karim mi ngi dëkk euh, euh, Géejawaay mais joxoon nañ ko benn programme boo xam ne ni daf doon dëppoo ak njàngalem Touba njàngaleem sëriñ bi ak njàngalem état bi nga xam da ngay mën a jàng ci école nasaraan si bi ba pare ni li nga xam ne ñi mooy sa pas-pas du la rëcc mais ana programme boobu pourtant loolu lu mat a bàyyi xel la mais kenn bàyyi ko xel état bi itam statut spécial wala particulier bi sëñ Cheikh di wax mais moom moo nu ko war a gën a bëgg ndax une population par exemple de deux millions de personnes du ma bàyyi mukk du ma noppi mukk du ma tayal mukk di ko wax tey tey soo xooleen Touba tey population 2 millions de personnes boobu lu mu gàtt gàtt war na am 3 hôpitaux ñaara fi nekk. wala ñett. mais benn bi. c'est pas encore fonctionnel sax. non non seulement c'est pas encore totalement fonctionnel mais benn bi muy Matlaboul Fawzayni taalibe yi ñoo ko fi def. soo demoon tey ci post de santé yi su fekkee da nga bëgg euh, norme OMS yi nga respecté ko il nous faut am au moins 200 postes de santé. pour respecter le norme OMS. 200 postes de santé yooyu. Mhm. soo xooloon tey tubaa ci kanam ñaat la fi def li fi nekk ci poste de santé lépp soo ko xooloon tey mënut a ëpp 50 postes de santé wala 40. donc on a un gap de combien de postes de santé mhm. mais 150 postes de santé mhm. donc état bi ci boppam su joxoon un statut particulier ou spécial dafay tax murid yi man cee dugal seen loxo ndax Touba nag es du espace boo xam ne kenn mën na koo limité. ndax ñun ñu naan 2 millions de personnes lañ mooy ñu dëkk Touba mais ana diaspora bi. ana les autres murit yi nga xam ne ñoom ñëpp kenn ku ne ci sab xol Touba rek lay laaj. mais loolu soo leen calculer tey lu mu gàtt gàtt xanaa réew mi nañ ci mën a am 4 millions. de 16 soo ci amee 4 millions suñ ba une population tout Sénégal nekk 32 millions de personnes lu mu gàtt gàtt danañ ci am 7 wala 8 millions de personnes. Mm-hmm. waaye mais su boobaa xoolal diaspora bi. yaa y a combien de mourides à l'extérieur kenn xamu nuñ toll mën nañ 3 millions. trois génération boobu man bi may voyager di dem Europe c'était le 3 août 1989 89 la ñaata at la suñuy doom sax fii ne seen xol bépp li ci nekk muy ñibbi si Touba waaye mais loolu lépp mën nañ koo bëgg ba pare ne duñ ko organiser donc dama yaakaar ne état moo war a gën a bëgg statut particulier bi wala statut spécial bi. pourquoi parce que soo xoolee ci wàllu wàllu njàngale mi on a un budget de quatre mille cinq cent milliards mais quatre mille cinq cent milliards yooyu tey soo demoon tey di calculer lu ci waa Touba war a am mais c'est presque zéro parce que soo xool tey fii benn école moo fi nekk boo xam ne publique la te pourtant sur le budget de quatre milliards quatre milliards quatre mille milliards cinq cent millions suñ ci xool tey li ci waa Touba war a am ci budget éducation. mais c' est beaucoup d' argent. Mhm. suñu amoon statut spécial nag danañ mën a organiser di jàngal suñuy doom. Mhm. ci ni ko sëriñ bi bëggee. Mhm. te du duñ duñ du du du du du loi réew mi ñu respecté nañ ko war a respecté. loolu tax itam ñu war a jóg ci mais kan moo ko war a def. ce n'est pas à du sëñ Cheikh mi ñun li ñu mën a def mooy def ay ay ay proposition waaye suñu ko deful itam suñu demee ba ci kanam tuuti jafe-jafe day am. pourquoi parce que Touba li tax état war ko aar. yàlla tere lépp lu xew ci réew mi ci wàllu santé su fekkee dafa déparé Touba rek dafay embrasser réew mi en en terme de sécurité lu tax Touba ñu war ko aar lu fi déparé day embrasser réew mi parce que Touba mooy centre réew mi. ku jóge Gambie fi ngay jëm si ku jóge Mauritanie fi nga jëm si ku ma ku jóge Mali fi nga jëm si moo tax ñu war noo dooleel. jox nu statut spécial boo xam ne au moins ñun war na noo mën a taxaw nag. pour sa protéger et pour protéger les autres parce que statut spécial bi du ñu permettre rek ñun ñu protéger wu mais surtout waa protéger wu sur le plan sanitaire dafay protéger réew mi su protéger wu sur le plan éducation dafay protéger réew mi mais sur le plan sécuritaire aussi dafay donc dafa jot statut spécial boobu am tey combien de police de de kii de police. poste de police poste de police. soo demee entre Guédiawaye ak Pikine soo leen boolee ñaata poste de police nga ak ñaata commissariat. waaw ah Touba est-ce que Touba ñett fi nekk fee soo fa demee da fekk plus mooy ah population ba nekk foofa mais toute population bi nekk Touba moo ko ëpp donc suñu permettre ñu suñ am suñu aspect spécial mën nañoo organiser sax sur le plan sécuritaire pour am au moins des euh, par exemple police municipale mm-hmm. su fekkee nag état li mu war a jox mënuñu koo jox ndax matelu ko wala boog suñu ko joxee am na leneen am na ñeneen ñoo xam ne war leneen mën a sédd te du leen sédd dama jàkk ne ko li waroon baax mooy ñu jox nu statut spécial pour qu'on s'organise davantage, se protéger et protéger les autres.